So bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. Sango Gouma TV, Sango Gouma TV, Sango Gouma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble. su fekkee abonné go cliqueel bind bu xonq biñ bind s'abonner ni. So cliquer ba paré, gis nga amna cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi. soo ko cliquer gis nga ñetti kolos mooy génn nga cliquer ci kaw fi ñu bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci canal bi activé nga notification yi lan moo si des bala ngaa dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wane ni aimé nga vidéo bi te lii nag doo ci fay dara te dinañu jàppale ci liggéey bi ñuy def. am na war a def moom pour ma bëgg. Mhm. pour ma nekk si jàmm sama xel daal ma bëgg ñu génn naa raas moƴƴo sobi ko des fois do waɗi filare defi ko sax di leen toppatoo parce que gisoo léegi xanaa gisoo di nga mel sa nit ko la sama loxo bi topp ma dem jaaro sa jaaro la xaar ci tax madame Mbaye laa nam su boobaa di nga de su di nga rek kenn ko ndax day bu ah saafaraam kon na ko ci boppam ndax ngay mën a xam-xam ku mat daw ñëw ci yow mu rox lay biteel sànni lay béjjën tey jaan ji toroxal daam xam-xam da ko wane. man bàyyi di gëm yenn marabu yi. papis bàyyi li ngay wax ma ko soxla woon. yow laa soxla woon Naara. man nga soxla woon. ba jàmm la. en fait danga may romb ci koñ bi bari. Mhm. ma cofeel ci yow daal. cofeel. waaw. Mhm. Euh, yow amuñu nëbboo hmm. sëriñ bi moom instant bi hmm. mën naa ni tanewul dara hmm. wallahi ba tey dafay nelaw boobu ba léegi moo ngi nelaw boobu ba tey saa bu ñu xëyee lu ñu war a def ko def garab yi dara manqué waaye jamono bi daal ba tey euh, xëygul daal Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.